te damay faral di wax ni soo demoon tey Amérique li tax Amérique dëgër mooy Amérique dañoo am ay institutions yu ama am doole ñu ne parlement bi na doole Sénat bi am doole justice bi am na doole ba tey président bu jël décision magistrat bi gën tuuti ci Amérique mën na toog ne décision bi dama koy bloqué parce que dafa violé constitution bi loolu mooy doole Amérique loolu mooy doole France mooy doole Allemagne nun nag ñeen ñëpp xam ngeen ni amuñu institution gis ngeen li xew ci assemblée nationale bi man fa laa nekk mën naa leen ne assemblée nationale amul Sénégal gis ngeen li xew ci justice bi amul sénégalais boo xam ne tey rafetlu na justice Sénégal ni muy doxee waaw lan moo tax Sénégal nërmaluwul ba léegi te amuñu ay institution moy institution sociale ni ñu la jox moy ñom ñi yalla tek fi te mandat bàyyiwu leen fi te sénégalais ay millions de sénégalais jox leen cër jox leen nopp jox leen sen deun ba réew mi su naroon jaxaso suñu waxé benn kàddu lepp mën na dellu siwaat ñoom ñooñ ñoy suñu institution motax ñun ci suñu programme politique dañu né relation rapport entre diine ak état dañu bëgg mu doon lu institutionnaliser waratul doon lo xamné rek ko wax ci Sénégal mu ne la laïcité laïcité te ku soxla nguur ñew ram kon lolu dañ ko wara a awaratuñ ci am complexe dañ ko wara institutionnaliser bokku na ci mesure yu wara mëna andi institutionnalisation boobu moy sénégalais ni mu soxlee faju soxla dem école soxla ay infrastructure soxla courant soxla ndox sénégalais nonu la soxlawee pass pass ak diine kon suñu amé budget ne budget bi mat na 3000 milliards war nañ mën a ne 150 milliards yi dañ koo def budget culte budget diine gi ñu am agence wala ministère boo xam ne loolu mooy liggéeyam ñu ne lii dina dem ci njàng mi ak diine yëpp nag laa wax lii dina dem ci xew-xew diine yu mag yi lii dina dem ci lii la dem ci laa waaye mënuñu continuer sous prétexte que laïcité la ñu ne tey budget Sénégal doo ci gis rubrique boo xam dañ naan lii jagle nañ ko diine lu dul bàyyi nañu ki yor réew mi mu yor ay maletam léeg mu jaar fenn joxe

yoo xam ne dañ leen war a officialiser. ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy régulateurs sociaux mooy tey su réew mi naroon tàkk gannaaw yàlla ñoom lañ ci yaakaar suñu waxee mu mu mu sedd ci jamono jii nga xam ne tension am na ci réew mi mooy fit yi jóg na euh, xol yi jóg na kenn ku nekk takku na takk takku bu dëgër fas yéene jàmmarloo du ñu xaar ba mbir mi xëm wala xomaak ñuy doog a ñëw moo tax newoon nañu ñëw. ne leen lii moo xew ci réew mi ba ëllëg ñoom suñ ciy wax ñu am ay éléments ñàkkul it ñi ñu jàmmaar lool ñoom it dinañ ñëw wax lu mel noonu bu ko defee ñoom ci cër gi leen yàlla sëdd ak seen xam-xam ak seen gis-gis dinañu xool kenn ku nekk ci li mu wax ba lañ ci war a def ci lay seddal ak li andi jàmm ci réew mi dinañ ko ci def kon loolu moo waraloon ñëw bi fii ñun dañuy faral toujours ni diine gi lu ama am solo la ci ñun waye duñu ñu bokk ci acteur politique yo xam dañuy bo diiné pour manipuler sentiment wu citoyen dama ci profiter sax wax sénégalais ni élection yi ñuy dëgmal bu kenn nangu mu doon élection bo xamné ay xëccio la ci waxu diiné wala waxu tarixa du lolu na doon élection yo xamné ne lépp day lalu ci programme kenn ku nekk na ñëw ne li moy sama programme ci réew mi citoyen yi mëna tan ci base boobu waaye bàyyi di essayer manipuler sénégalais yi ci lu bokkul ak loolu wax nga nag affaire Karim Wade damay wax ni suñu parti dañoo manifester suñu solidarité ak PDS suñu leeroon ni PDS newul ci dëggit duñu duñu solidarité ci ñoom waaye dañoo jàpp ni mënatuñoo nangu ci réew mi Macky Sall nga xam ne daf fee système bu tax mu mun a falu moom te système boobu weesuwul code électoral bu ñëpp d'accord ndax même 2012 du code électoral bi lañ ñi doon xex waye est-ce que Ablaye waron na am ñettelu candidature wala déet mo neewon ciowli mom mu ñew loolu mu jalgati ko te djublu way bi mu ci am muy nu muy def ba candidat yi yi wara jamarlo mom mom mo leni tan bo tànn écarté Karim wad écarté Khalifa Sall écarté Ousmane Sonko écarté Massamba ak Mademba bu ko defee nga tan say candidat yow outal len sen parrainage ñu ne élection la xam nga sénégalais duñ ko nangou ba tax li ñu def muy guléet ci Sénégal mooy fenk ab loi boo xam ne ñaari nit rek ñoo tax ñu def loi boobu xam nga ñun dañoo jàng droit droit daf ñu ne loi dafa war a doon loo xam ne du lu ñuy dagg pour benn nit du mais loi dafa doon xam ne dafay maasele ñëpp mais dagg benn loi boo xam ne Karim Meïssa Wade ak ak euh, Khalifa Sall rek ka jubluwaay bi ñu ne déedéet ki waaye nga génnaat sa beneen parrainage boo xam ne peut-être ñoom it Ousmane Sonko ak Cheikh Issa Sall ak keneen ak keneen ñooñu mooy jubluwaay bi loolu la ñu mënul nangu te citoyen waruñu koo nangu ba tax am nañ ci solidarité bu mat sëkk bokkuñu parti ak PDS peut-être am na ay fànn yoo xam ne bokkuñu gis-gis waaye ci point bi ci poñ bi ak ci yeneen poñ yi nga xam ne mi ngi jëm ci processus électoral bi ñoo bokk front bi ñu solidariser wu entièrement te lépp lu xeex bi laaj bu soobee yàlla dinañ ko ci xeex parce que suñ ko seetaanee defe naa ba moytul géew gi moom rek a fay nekk te loolu Sénégal mënu koo nangu ndax sénégalais yi dañoo doyal ci moom ci ñàkk mënam